yaa من قسنا فلا إليه بالقدر مواظبا لجامعات داري حتى غدا غير من الفشاري ثم سلام وسلام أبدا على الذي خير البرية بدا ñun ñëpp nag ñu ànd ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha wax naa démb ci rajo bi ni jaloore yi muy def ak teraanga yi muy def bu leen ko limati sëñ bi soxlawul lim lu mu def fàtte na ko lislaam bu doonu nag ku ko rey da ngay fay sëñ Muntaxa dañ ko ko sàmmaloo waaye li mu dëgmal nag te war a jëf dellu ko dàkk ci li ci kanamam waaye li ci ginnaawam bu ko kenn fàttaleeti ëpp na ko Cheikh Muntaxa du joxe wax du joxe geesu du ca tofal baat yàlla tax li muy jëf ngeen gis ko yéen presse bi di ko wax li muy jëf ci biir te kenn tegul ca bët moo ëpp kon nañu bàyyi xel ni yàllaa koy def loo sëriñ Tuubaa lay liggéeyal université bu mag bii yàlla na ko sottal ci jàmm te na ànd koog moom walu bañ la ko def nag dafa mokk te kenn déggul kur ga moo tax nañu bàyyi xel ni jàmmay xew ci réew mi ku ni damay indiw ay sëñ Muntaxaa ni jàmm pas-pasu sëñ Muntaxaa kenn mënu ko fecc ku yebu dal kuy ni sa almet boo sa tee du takk boo indee pétrole du takk sëñ Muntaxa nga fi te ànd na kook lislaam bi yëpp amul benn xarit sénéral bu mu umpanteel dal leen te ñu sëriñ Modou Mahfous gannaaw bu ñu sante yàlla moom bi ñu may ñu teewaat bés bi ñu ngi jëm julli ci sangu sang yi seydina muhammad sallallahu alayhi wa di sant suñu bunt ci lislaam xaadim rasulillahi ñaanal suñu sëriñ suñu wayjur sëriñ Muntaxa Bachir mu yàgg fi lool te wér ba naan yi mu am ci yoon wi yëpp mu eggale ko ak jàmm sëriñ Mahamadou Mahfouz sa xarit sa rak sa taalibe président de la république son excellence Macky moo ñu fi yabal pour ñu ñëw ànd ak yow guddi gu tedd gi am mbégte nag ànd ci ak sama mag sama collaborateur sama collègue monsieur le ministre Omar Sarr ànd ci ak gouverneur de la région de Diourbel préfet bu département bu Mbacké sous-préfet arrondissement bu Ndar ànd ci tamit ak monsieur le ministre directeur de cabinet adjoint du président la République Demba Diouf foofu ci sa wet ànd ci ak monsieur l'ambassadeur itinérant mhm. Serigne Fallou Fall maire de Ndiayène Sirakh ànd ci ak euh, Pape Abou Camara président du conseil d'administration du programme PF2E ànd ci ak honorable député Maymouna seen mi ngi ci délégation am mbégte nag fekk fi suñu ay mbokk suñu ay xarit suñu ay camarades suñu ay mbokku talibé mu mën ci lim sëñ Modou Bara Dolly Mbàkke lim ci suñu xarit bi ñu dalal moom laa waroon jiital sax monsieur le maire Abdou Lahad Ka fekk le maire de Mbàkke Ndaw di suñu xarit monsieur l'honorable député maire de Kaffrine fekk ñu fi ci jataay bi ñu mën ko lim ci délégation président la république fekk fii it suñu xarit sëriñ Morlo ak sëñ Moussa Thioune mais nga xam ni ay jàmbaar yi fàkkitat lañ ci dëkk bi ak sama xarit ba léegi sii di sekk ñi ma fete gannaaw ñu jéggal ma waaye délégation bi ëpp na loolu ak suma attaché de cabinet Mara Diop Mara bu sëñ Sidi Mokhtar sëriñ Mahamadou Mahfouz délégation boobu ma lim président moo ñu fi yebal ni mu ko daan defee ci at yi ci gannaaw yépp ñu ànd ak yow ci guddi gu tedd gii te sa njur bi jëmmaloon ko mboolem at yi mu nekk fii ànd kook magam yu baax muy soxna Maymuna bintu Xaadim Rasul yàlla nañu ko suñu borom fare guddi gi boroom xam-xam yi bari na luñ ci wax ñuy wax ne gën na fukki junni weer ci jaamu yàlla moo tax président de la république ni mu ko daan defee saa su mu yebale fi délégation pour feddale kóllëre sa diggante ak njabootu soxna may Maymuna Mbàkke yépp feddale ko sa diggante ak yow sàkku ci bés bi soxna may bintu xaadim rasul alaaji mbay peex wax na ko léegi taxawaayam ci bés bi tàmbale ko ci ñaari ginaar ba tey bés bi fi mu toll képp koo xam ne nii jullit taalibe yaa ngi màggal tey laytul xadar jàpp naa ne mën nañu wax ne yaa ngi ci sunnawu ci suñu waajur woowu di soxna mbay bintu xaadim rasul liggéey boobu lim fi nekk yépp ànd ko ak magam yu tedd yee mu koy def ba soxna Bali jël liggéey bi ci loxoom liggéey ci liggéey bu rafet ba tey nga ànd ko yow ak sa jarbaat bi di kenn ci man di sama xarit di sama mbokk di sama collègue muy sa jarbaat sëñ Cheikh Abdou Mbacke Bali ma koy sant bu baax ci taxawaay bi fii ci dëkk bi ci bés bi waaye tamit ci wetu président Macky Sall sëñ Mouhamadou Mahfouz comme ni ma ko waxee léegi guddi gii guddi ñaan la ñu am ci njort bu rafet moo tax président ci gàttal xam na ne doxale nga ndigal bi la sëñ sëñ Mountakha Mbacké wax ci li nga xam ni moo tënk jamono ji ba nañ ko daan defee at yi yëpp mënuñu ko defee waaye yombal nga ko pour que ñu mën a barkeelu ci guddi gi moo tax président ne loo ko yombal yombal dina fi yónnee délégation comme ni ma ko waxee léegi pour sàkku ñaan ci réew mi mais nga ñaanal ko ba moom it naa yi nga xam ni am na ko ci réew mi yëpp mu eggale ko jàmm rafet nañ ci njort nag ndax ñi ma jiitu ci kàddu gi wax nañ ko ku xool diggante président de la république Macky ak diggante Serigne Touba ci kaw suuf sëñ Mountakha Bachir njort mën naa rafet. kon boog sëriñ bi duma ma guddal ndax ni ko ñi ma jiitu léegi waxee rek président mi ngi feddale kóllëre sa diggante ak yow digganteem ak njaboot yëpp digganteem ak sëñ Mountakha Bachir muy ñaan ngeen ñaanal réew mi xam ne ne yaa ngi ci waaye nga yokk yow mi dal yàlla yokk fi dal yokk fi jàmm ba nawet bii ñu jëm suñu boroom def ko mu barkeel baawaan saawaan sëñ Modou Mahfous kàddu yooyu la sëñ président de la waxoon ne su ñëwee la ko jottali mi ngi ñaan yàlla ñu yàgg la fee fekk yàgg ñaanal suñu way wayjur wu tedd wa yàlla na ko suñu boroom fayal ba lépp loo xam ne jàng nañ ko ci xasaayit ci alxuraan ci bés bi ñu wasaare ko ci dëkk bi yëpp rawatina ci àdduna bi di ñaan yàlla at yi di ñëw fayal bi nekk ci dëkk bi génn fi ban muñ ko woote nañ ko daan wootee ñu ngi lay sant bu baax di la siyaar jërëjëf Mbàkke asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ñaanal Serigne Mountakha xalif général des mourides mu yàgg fi teewee di ñaanal sama Serigne Serigne Sidi Abdoul Ahad ak njabootu Serigne Touba yëpp mu yàgg fi teewee maa ngi maa ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di. dalal délégation bi nga xam ne ñoom la fi président de la république indi yónni te ñu ràññee ci Serigne Dame Diop mu jiite ko comme ni ko Ablaye Mbaye waxee ak euh, Demba Diouf mi nga xam ne mooy directeur adjoint ak Soxna May Seen mi nga xam ne député assemblée nationale ak euh, Omar Sarr le ministre ñu ngi ko ci nuyu bu baax a baax di ko ndokkeel suñu xarit ak Fallou Fall bi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ñoo ànd ak gouverneur de la région de Diourbel préfet de Mbacké sous-préfet de Ndam ak l'ensemble des membres CRD bi nga xam ne ànd nañu ak ñoom ñu ngi leen di dalal jàmm di leen yóbbante ak nuyoo ak ak cant bu jëm ci président de la république moom mi nga xam ne moo leen fi yebal comme ni mu ko baaxee def ci jamono bu nekk ci lu mel nii di jël nuyoo bu sell di ko jox sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma mu joxal ñu ko suñu sëriñ suñu kilifa sëriñ Modou Mahfous mu jottali ñu ko mbooleem kilifa yi fi teew te jóge Daaru Musti tey te teew fii ci bis bii nga xam ne taarix la ci Daaru Musti la jóge woon la la la sosoo ba ñëw fii tey loolu su ma ko waxee ñi nga xam ne xam nañ taarixu laylatul xadar ñu xam ne ndigal li soxna may mi ngi ko jote woon Daaru Musi Sëriñ Fallu Mbàkke moo moo ko ko joxoon mu di ko ci ñaari ganaar ba mu agsi fii tey loolu yaakaar naa ne lu lu lu ci yoonu murid ci àdduna bi mu sosoo ba nëgë ni bariwul ñaari xew yi yoo xam ne ci jigéen moo ko jiite ba tollal ko fii muy màggalu Poroxaan bu soxna Jaara Buso ak laylatul xadar bu soxna may mun a xaadimu rasool yaakaar naa ne ñaari bis yi bokk na ci bu doon wër àdduna ba mu daj ci lan la jigéen loo xam ne soxna yi ñoo ko soso mu ñëw ba toll fii mu tollu bariwul ci ci taarix kon nag ñuy ñaan rek di dalal ñëpp di ñaan jàmm ci réew mi di ñaan Serigne du max mi nga xam ne moo jiite bis bi tey te a yëkkati woon Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi nga xam ne lépp la ci ñun wax naa ko na gën si démb rek defe naa ne àddina bi di ko dégg suñu sëriñ la suñu xarit la suñu wóllëre la suñ borom mii boole li suñu turandoo ja waxoon ah, sëriñ Abdoul Ahad boole de yàlla moo koy def waaye ànd nag ak jikkoo koy def suñ borom boole ñu jamono boole ñu sëriñ bi boole ñu liggéeyab sëñ Tuubaa bi muy boole ñu ñu di ñu liggéeyloo ci maire bi mu taxawaay fa taxawaay bu rafet li ma wax dem rek fépp foo ko seen jarul Abdou Lahad Ka di fa teew fépp foo xam ne seen nga fa Abdou jarul Cheikh Abdou di fa teew ndax suñ borom boole nañu dégg lañu te ci ay jikkoom ñëpp ràññe nañ ko lu ma nëgët si démb rek laa wax ci presse bi wax joo xam ne mënatumaa wax lu ni toll ndax dëgg moo jàng Faatiha ñoo yem sooy wax rek li nga waxoon ngay waxaat foo répété Faatiha rek li li li nga waxoon ngay waxaat kon wax ji dafa naa ne jarul ma di ko guddal ma maa ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp comme ni ma ko daan waxe di ñaan du max foos nga ñaanal ñu ñaan jàmm ci réew mi ci nawet bi ñu jublu suñu borom def ci barke waaye nga ñaan jàmm ci réew mi ci mbas mii fi nekk suñ borom jëlee ko fii ndax borom bis bi ak bis bi àttan na lu nekk ci àddina lépp loo xam ne fas nañ ko ci rek suñ borom dana saafara loola kon nag du ma guddal wax bi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla nañ fi teewa na gën déwén te gàllankoor yëpp dañ ñu ñu ñu màggal ko ay màgg màggal di la ñaanal yàlla guddal soo fante wéral say cer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 gouverneur honorable ak sous nga àndal ñëpp rek ñu neexal ñu di leen dalal jàmm di nuyu itam le ministre Omar Sarr nga xam ne dikk na fi moom itam ànd ak délégation bu takk ci ni ko sëñ Abdoulaye Mbaye Gar li ma léegi di jiital ci kàddu yi rek ak cant jëmale ko ci ki nga xamante ni moo di Serigne Touba moo di Cheikh Mamadou Moustapha ndax ba mu joxee ndigal Serigne bi da caa yemut da da ko ànd ak moom na ma ko waxee woon ndax dana woon day nekkoo danaa ko ànd ak moom ci njaal benn ba ca na mu jeex te moom moo doon jëw ni ñu liggéey bi jamonoy soxla si doonoon loxo la jot soxna si doon lépp soxna si kon ñu koy sant di ko gërëm ndax fii sëriñ Modou toog day mel ne moom la fi toogal ndax li muy def nii jamono soxna si moom moo ko daan def te ngërëm loolu lañ ci dugal mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gépp la ko dale ca suñu kilifa sëriñ si Abdou Lahad ba ca ca gën tuuti bàyyiwuñu kenn di sant ak di gërëm itam di gërëm sëriñ ba tey mboolem njabootu borom daal moom ci gépp dafa ko sëriñ Bass Anta Niang El Hadj Mame Thierno ñëw na fi ay ndaw ñëw yoon yoon yoon lu ne mu yónnee ko fi moom itam sonn lool ci bis bi ak mboolem njabootu borom daal moom ci gépp di gërëm mboolem yoon mu yëpp bàyyiwuñu kenn ndax bis bi ne ko daan defee ànd nañ ak sëriñ bi. ci anam bu rafet seen yitte jox nañ ko ko jox ko seen temps def ci seen alal ñoom ñëpp ñëw teew ànd ak moom ba bis bi mel ni mu mel kon xam nañ ni fii sëriñ bi toog dana fee toogal waaye ñoom ak moom ñoo yem ci bis bi ndax ñoom ñëpp la soxna si boole jaboot di sant nag bu baax a baax kii nga xam ne mooy euh, le président Macky Sall te monsieur le ministre Dame Diop loolu dañ la koy yëbbal ci moom ci taxawaayam bu rafet ci bis bi te loolu duñu kuréet ndax li nga xam ne ñu ngi koy taxaw di ko taxaw sëriñ bi di ko taxaw dëkk bi di bi loolu kon mu bis bi ñëwee mu defe ci noonu mu doxe ci noonu foog naa ne bettul kenn Abdoulaye lim na léegi nga xam ne mi ngi ko def ci dëkk bi fan ngeen neewoon nañ ëpp na juróom-ñett fukki milliards ci loo xamante ne bii loolu lépp gis nañ ko te kenn mënu ko wetti moom mi ne tey jii dem na seen centre bi nga xam ne mi ngi ko defal sëriñ bi ci biir université bi kon muy ay liggéey yu bare bare bare bare te nit ñi dañ naan yàq rek di jaxase di wër di wax waaye fi mu toll mel na mbir mi leer nañ te nit ñi yow nañu teg nañ seen bët xam nañ ndax xam nañ ne sëriñ bi du neen ndax sëriñ bi lu yàlla ñoru kon sëriñ bu dee sant saa su nekk laa tax muy sant ku xool di teg sa bët moo tax ñu dox ba ba na ci duur baaraam ni mi ngi nii mu leer nañ nit ñi nga xam ne que lii président Macky Sall defal na ko bi ci dëkk bi kon ñu ngi ko yóbbante ak cant ci loolu si la mbir di la ko yóbbante di la yóbbante itam sunu cant bopp ci sunu ànd ak moom boo demee nga xamal ko ne ko am nañ ci mbégte am nañ ci fierté te engagement bu aussi ñu ngi koy renouveler waat ndax ànd gi ci kilifteef la ñu ko teg ba ca loolu xasee dugg nag la ca des lépp suñuy responsabilité bopp la jël di ca dox nañ ca war doxe ndax gis nañ ni mu tey gis nañ ni mu jàpp te loolu saa su nekk mu di ko firndeel di ko wane kon loolu itam ñu ngi koy yóbbante bu xam ne ñu ngi koy sant ñu ngi koy ñu ngi koy gërëm yow itam ñu lay sant bu baax ndax loolu dafa mat a témoigner ndax bi su mel nii loolu daf ci am solo ndax mën a yow dañuy ànd bu bare bare bare bare bare ci dëkk bi ma teg sama bët ci ni nga koy defar la gis ni nga xam ne noonu nga koy taxawoo te loolu di lu am solo kon yow ñu ngi lay sant di sant bu baax di rafetlu sa taxawaay ci biir dëkk bi ndax fekkente ne bii dëkk bi ñëpp say maam lañ ak say nijaay ak say wajur mu jël la boole la ak ñoom nga koy liggéeyal ci seen biir liggéey bu rafet ndax xam nga ne sa bopp nga liggéeyal kon loolu foog naa ne amee nañ ak cant amee nañ la ngërëm ndax toujours damay faral di wax ne diggante diine ji ak ñi nga xam ne ñooy wala adduna bëree indi ay féewale ci seen diggante ndax musiba mën a ci sababu ci loo xam ne dafa jëm ci réew mi kon waxtu wu nekk ay pont lañuy war a tabax ci diggante bi dañ ko war di rataxal ak jëgoo da cee war di am su ko defee réew mi dana am stabilité réew mi dana am jàmm te loolu foog naa fan yi gën fir firnde ji leer na ci nañ Sénégal yëpp teg nañ seen bët kon defar googu nag képp koo na yaa ngi defar ci loolu di rataxal boobu diggante yaa ngi liggéeyal réew mi yaa ngi liggéeyal président yaa ngi liggéeyal askan bi te yow yaa ngi ci loolu kon loolu ñu léegi sant la gërëm mënu ma ñàkk témoigner loolu parce que dama cee teg sama bët di sant bu baax nag kooku nga tawal ci sa wet mu di le ministre Omar Sarr suñu Ablaye li mu wax léegi ma dellu si waat mhm. fii la dëkk sëriñ bi ndi yaayam soxna si di maamam man ak moom ñam ci kër gi muy kóllëre boo xam ne kóllëre bu yàgg yàgg yàgg la wax naa ko léegi ci kër gi nekk nañ ci pouvoir coloré ko di am mu dem ci opposition coloré di gën a dëgër mu dem si waat pouvoir coloré di gën a dëgër kon day mel ni coloré gi sax laluwut ci politique loolu loolu moo ko dëgëral te jataay bi foog naa fukki at ak juróom benn yi foog na at boo xam ne manqué na guddi gi même su war a tukki day daq tukki ba ñëw ba guddi gi jàll mu soog a tukkiwaat kon monsieur le ministre ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm sa taxawaay rafet na ni nga jàpp kër gi tam rafet na di nuyu baax nag mbooleem kilifa yi nga xamante ne bi ñoom nga ñoom nga àndal ñu maître Sall di le président Babacar Gaye di Serigne Bamba di Abdou Aziz fàttewuma kenn ñëpp ndax ay kilifa rek nga àndal ñëw fi loolu bi nga xam ne jox guddi gi waaye importance bi nga xam ne également jox nga ko fi nga xam ne nii aussi moo di ci kër soxna si di sa di sa kër di nuyu euh, nga xamante ne bi yéen ànd ñu nuyu mbooleem mbokk yi nga xam ne nag teew nanu fi sëñ Lamine Mbacke mi ngi fi sëñ Abo mi ngi fi bokk yëpp ñëwoon nañu waaye dañuy xat tey jii dañuy sàmmonte ak ndigal li nga xam ne moom la sëriñ bi joxe ndax sëriñ dane woon ni ngeen jokk alxuraan bi ni ngeen jokk xasida yi ni ngeen jokk bernde yi waaye jataay yi ni ngeen ko yaraaxal kenn ku ne xam ne fii ay junni junni nit ñoo fa daa daje bokk yëpp ñu daal leen invité di fi nekk ci cérémonie bi ba ñetti waxtu ñeenti waxtu jot ci guddi waaye ren jii nag loolu mënee su ndax jamono ji laaju ko waaye sunu borom mi dogal dogal na ne soxna si moom faggu woon na lii ndax foog naa ne salle bi mënee suta am tant boo xam ne moo ko gën a rafet te fii jàpp naan boobu barki kon foog naa ne bu ñu fa dajee itam am lenn ci bokk yoo xam ne ñëw nañ fi teew fi maa ngi fàtte sëriñ Modou Baro loolu moom aussi mi ngi ci jataay bi ñu ñu jégal ma ci lim gi kon day wane rek ne nii mooy ni ko sëñ bëgge woon mbooloo mi moom bari wax ji aussi bu mu gudd jataay bii na yaraat su ko defee ñu delluwaat nag ci jàmm yàlla yi nga xamante ni moom la muy wax ne nañ ko jiital ci yëf yi nañ ko ci njëkk ñu nekk ci digg bi te nañ ko mujj kon daal ci gàttal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëriñ bi di la gën a dénk kenn ci délégation bi muy sunu xarit bokk di la ministre directeur cabinet adjoint Demba Diouf moom itam di suñu bokk taalibe moom itam mi ngi fi ànd ak euh, Serigne Dame di seet si la moom itam ñëw ci ñëw ci këram kon ñu ngi koy dégg di dégg aussi suñu gouverneur moom itam ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu rafet rafet la di gis bëccëg Serigne Mbaye Thiam jaar na fi. Azar ayal ci am jaar na fi Amadou Ba yore na fi ñëpp gouvernement bi kenn des kenn ku nekk yónnee na kenn ku nekk say ndaw dikk waaye day mel ne bu sant président de la République ñoom ñëpp ci cant boobu la ñu dugg ndax ñoom moom la ñu liggéey amu ci kenn koo xam ne bëgg nga sax wane sa bopp kon cant gi ñu sant président mbooleem koo xam ne njabootam nga dugg nga ci cant googu ndax ñoom moom la ñu liggéey ak liggéey aussi moom la ñu fësal ci commencé di sant baax nag monsieur le maire Abdoulaye Ka ñuy taxawaayam bu rafet ci dëkk bi ci taxawaayam bu rafet tam ci kër ci kër soxna si li fi wax léegi soxna wax na fi waxtu waxtu ko kon am na loo xam ne moom jël sax ci jaaraat lu ñuy dund la muy dëgg ñoo xam ne ma wax ko biig nee naa ko suñu diggante sëriñ si di ma ko garanti loolu moo tax te sëriñ si di kenn ko nekk xam na ko foo ko bàyyi woon fa nga koy fekkaat dara ci jaaxal nekk ci dara ci jaaxal amul kon loolu moo ñu garanti suñu diggante moo tax mu mën a rafetal nii moo tax lépp itam mën a leer nii kon sëñ Laal ñu ngi lay sant ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm di nuyu baax itam sunu jàmm boobu mu àndal mu di le maire Abdou Abdou Mbacke Ndaw kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm bu buñ fi nekkee di lim dafay dafay guddi te jataay bi wëtt wëtt gudd ñu toll nii rek dañuy jox kàddu sëriñ bi ak sëriñ bi ci ñu ñu ñaan wala tey ñaan yàlla lii nga xam ne moom la ñuy dund mu jeex ak jàmm ba ñu delluwaat ca na nga xam ne noonu lañ doon dunde te jàmm rek sax ci réew mi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ñëpp ak wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu dem sëriñ Lamine ak sëriñ Abo waxoon naa ko léegi ñoom itam seen taxawaay ci bis bi rafet na nga xam ne lépp loo xam ne tax na ci ñun wala tax ci kër soxna si def moo fi njëkk moo fi mujj loolu foog naa Sénégal yëpp xam nañ suñu suñu suñu diggante kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulah wa barakatuh. jërëjëf. même gépp ñooñu itam bu ñu ñaari doomam yi di moom ñu ne bi ak dégg ba tudd na njaboot gépp monsieur le ministre ni ma ko waxee taxawaay président de la république ci réew mi taxawaay la boo xam ne yéesul benn taxawaay ndax ñun amuñu lu may Serigne Mouhamadou Mountakha moo fi Serigne Touba moom la ñu xoolee Serigne Touba te xam na ne lépp luy jiite bu duggee ci nopp président de la République lu ci mën ak lu ci mënul daan see taxaw ba suñu gàmm dem bëgg kon loolu ñoo ngi yeesal suñuy ci moom. di yasal suñuy ñaan ci moom di ñaan suñu borom taxawu ko jàppale ko ba màggali yéeneem bis bi nag day bis boo xam ne mës naa wax ne mooy bis bi gën a ci bis bi ndax weer wi nga xam ne muy shahru ramadan sunu sëriñ sunu yaakaar tey ëllëg di Cheikh Ahmadou Bamba wax na ne mboolem li mu doon ñaan sunu borom ci àdduna ak ci alaaxira ci weer wii la ko sunu borom mayee muy weeru koor di weer woo xam ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa axiruhu itqun min annaar yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne weeru koor fan yu njëkk yi yërmande yàlla la digg bi njëkkalu yàlla la mujj gi goree la ci sawara loolu bokk na ci li taxoon soxna may mën a Mbàkke tànnoon bis bi di ci liggéeyal sëriñam ba di ci liggéeyal xaritam ba di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul xam ngeen ne guddi gii mooy guddi gi nga xam ne ci la sunu borom waxee ne bu jant bi soo ba bu muy feeñ mboolem malaayika yi sunu borom di leen di jox ndigal ñu wàcc ànd ak seen kilifa di Seydina Jibril ngir di gàttandu jëf yu tedd yi nga xam ne moom la julli di jëf di ko yóbbu foo xam ne yaa àggu fa di guddi nga xam ne ci la alxuraan di guddi xam ne sunu borom wax na boppam ne di seen ci lay séddale cër yi di guddi nga xam ne itam Sëriñ Tuubaa ci boppam da ko xamle sant suñu borom ñu tubaab dafa wax ak mbokk mi ne alhamdulillahi mujidi lil xadar man xassana fadlan bi laylatul xadar mu atimal li sha'niha fi dahri xataa ada xayran min alfi shahri sëñ tubaab nee na mi ngi sant yàlla mi man lépp te jagale nu nga nee yi def ci guddig laylatul xadar sëñ bi daal wax ci màgg bis bi yaa rabbana bi fadli hadal yawmi aslih umuri wa umura xawmi loolu ñaan do ñaan la doo xam ni Sëñ Tuubaa dafa defal mboolem réew mi dafa xam ne yow yàlla yow sunu borom maa ngi lay ñaan na nga yëwénal mboolem samay mbir man Cheikhul Khadim yëwénal mboolem mbir yi ci man pour di jullit yëwénal mbir yi mboolem ko ma réew mi muy guddi koo xam ne itam ci la sunu ci la Sëñ Tuubaa ñaanee àjjana ak taraage adduna taraage alaaxira yaa yaa rabbana bi jaahi nuurayni habli wa lil ummati fi daarayni Sëñ Tuubaa nee na ci guddi Laylatul Qadr ci la ñaan sunu borom yaari leer muy leeru adduna ak leeru alaaxira di leer yoo xam ne maa ngi koy sama bopp ak wàllu ci ma di ko ñaanal mboolem xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa nga ne yooyu aju ci guddi gi ak xéewal yooyu aju ci guddi gi moo waral sunu wajur soxna may mën a bàkk tànn ko di ci liggéey Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moom mi sëriñam tey wajuram kon nag guddi gi guddi ñaan la guddi jaamu yàlla la te Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa gi nag ni ko soxna si daan doxalee mooy jël lépp teg ko ci alxuraanul karim da daan def at mu nekk lépp lu mu liggéey mu dajale ko ba weeru ko dikk mu séddale ko daara yi alxuraan yi wax ne ay ñaq boppam moo ciy jiitu ndax alxuraan moom mooy li xam ne sunu borom teg na ko fu mu tegul leneen bu ñu delloo ci waxi Seydina Muhammad sallallahu wax na ne fadlul quraan ala saa'iril kalaam ka fadlillaahi ala xalqi yonent bi sallallahu wa sallam wax na ne alquran ni mu gën a ci lépp lu ñuy wax ci làmmiñ mi ngi mel ni ni sunu borom gëne mbooleem ay mbindeefam sunu sunu yonent bi daal wax ne xayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu nee na ki gën ci ki gën ci yéen mooy ci jàng alquran bu nekk di ko jàngale nga ne yooyu ak li ci sëñ Tuubaa wax moo waral ñu tànn guddi gi ndax sëñ bi wax na boppam ne fa man araadal qurba min mawlaahu falyaqra'il qur'aana laa yansaahu Xaadimu Rasuul nee na képp ku bëgg a jege yàlla digal naa naka sax ci di jàng alxuraanu karim sëñ Tuubaa daal wax ne xultu fa may yurid rida rahmaani falyusbit inda taabul qur'aani nee na képp ku bëgg ngërëmul yàlla na nga sax ci di jàng alxuraanul karim teg ca nag kàddu boo xam ne benn taalibe bi benn taalibe bu bàyyi sëñ Tuubaa ndax sëñ bi dafa wax ni kullu ci man man Xaadimu Rasuul jox naa ne ndigal bi du sax bàkk na nga sax ci di jàng alxuraan te bu ko nga ne yooyu nag moo taxoon suñu wàllu woow yi tànn bis bi di ci màggal di ci màggal suñu borom tabaraka wa taala di ci màggal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ci lëggee kon nag bu ko noo guddal noo ngi ñaan ci barke guddi bi ak ci barke weeru wu tedd bi suñu borom yéwénal mboolem suñuy mbir yéwénal mboolem mbiri jullit yi te nu xam ne góorgóorlu mooy li wax bépp jullit ndax kat am na hadis bu yonte bi wax boo lu ma di bàyyi xel bi sallallahu alayhi wax na ni ida maata ibnu adama in qataa bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu adama bu fi jógee mu des yetti yëf lenn la mooy ay bi xam-xam bu amoon tey jublu gerte doo gannaaw bu mu faatoo aw amalun saalih wala œuvre sociale yu mu doon def moo xam tabaxi jàkka moo xam tabaxi dispensaire wala awal aw wala jant moom la wala doom doo bàyyi mu di la jàngal nee na lu dul lépp du fekk doomu aadama ci bàmmeelam kon nag noo ngi ñaan suñu borom def na ndimbal tawfeex nu sax ci di sàmmal bis bii soxna may mun a baax mi nga xam ne dund na ba jóge bi musta amul beneen bis Moussa soxla si beneen bis mos te dégle ci kenn ci ñun ñi njabootam wax ne bu fi jógee nan ko wutal genn màggal ko guddi ko gi mu di ci liggéey Sëñ Tuubaa di ci liggéey alxuraan noo ngi dellu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di yeesal suñu cant ak suñu bu baax ndax amul lu muy bis ah, ndax moom la mu suñu wàññi dénkoon soxna Bali mi nga xam ne moo doon ak taaw nekk ci la nekkoon ba wuñ boromam te nag amuñu benn yitte bu dul wéyal soxna may liggéey boobu njaboot bi itam maa ngi yeesal sama jant ak sama ngërëm tawul bi Cheikh Abdoulaye te amul jënd yi de judul luy saxal léegi maamam di soxla mooy ko defar. moo ko rafet yi bu seqal ñëpp ak asul mbàkk ñoom ñëpp maa leen sant leen gërëm di leen ñaanal suñu borom taxawu leen dafa leen gàttal ba la relève lu mat di lu mat bàyyi xel la waaye rafet nañu jot ci ñoom lool rafet nañu ci ñoom jot lool ñaan sax borom yàgg leen sax leen def leen dimbal tey nga def ko salaamaaleykum wa rahmatullah